Souleymane Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. Mhm. nga jiite ONG euh, Otra-Africa tey ji euh, ñuy wax ci xibaar yi benn euh, ay sénégalais migrants yi nga xam ne ñoo ngi bitim réew Espagne ak Allemagne ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi leen di waaj a andiwaat seeni réew lan lañ mën a jàpp ci xibaar yooyu. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant. di nuyu seen auditeurs yi bon dëgg wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax intérêt bi ngeen am tout le temps si question boobu bu jugee ngeen laajte si ONG Autre Africa euh, ñun ñu ngi topp xibaar boobu dëgg xibaar la boo xam ne jug na euh, ñun su ak sunu ay partenaires yu nekk Espagne euh, ñu ngi koy càmbar di xam fan lay mujjee wax la boo xam ne nee nañu dañuy waaj a delloo si ay doomu Sénégal yu nekk biir Europe Europe de l'Est particulièrement diggante Allemagne ak Espagne hmm. euh, am na wala amul amaguñ ci lu wóor loo xam ne mën nañ ci teg suñu loxo waaye nag ñu ngi koy laayam laayame ñu ngi koy topp ba xam fan lay mujjee mais ñu jàpp si dara mooy ni que euh, mbëkk mi fi mujjee génn si taawu mbas mi. Hmm. ak bi mbas bi kiiwee gaal yi fi mujjee génn yëpp bi ñu yëgee Europe. ak procédure yi am Europe mooy ni que leeroon na ni am na ñenn si ñoom ñoo xam ne dañ leen delloo si mm. loolu moom buñ ko nëb buñ ko nëbbante parce que Union européenne moo joxe directive yooyu mm. nit bu yeggee biir espace Schengen bi dafa am diir boo xam ne diir boobu nga waroon a mën a def sa procédure demande asile wala demande de réfugié wala demande d'assistance buy munti def dafa am giir giir boobu boo amee juge bi mooy ordonné ndax nga continuer def procédure bi wala ñu delloo la juge bi nag bu la neewee dala delloo dire tamit bu ñu lay téye si centre de rétention yi puisque tamit euh, dépense la boo xam ne dépense Union européenne la. Mm-hmm. plus que ñu lay foofu plus que ñuy dépenser. donc bu koy bu ko defee dafa am benn giir boo xam ne boo si tolloo rek dañu fexe xool nu ñu lay delloosee delloosi bi nag mësoon nañ ko fi yëkkati. ba ministre affaires étrangères Espagne ñoon fi ñu waxoon si. Mm-hmm. ñu yaakaaroon ni ko loolu dañ ko kii mën na am si waxte tamit kon si tànk yooyu la ñu nekk ñu nag ñu ngi koy topp ba xam fan lay mujjee ak nag lu mu si munti doon tamit lépp luñ si munti xam dañ ko wéccoo ak yéen. ci topp googu sax ndax am ngeen xibaar kañ lay doon wala ndax am ngeen xibaar ndax ñeen ñi jot nañ leen a indi waaw non euh, kañ lay doon xamaguñ ko. Mm. barki ba mës nañ ko fi wax ba ñu jàpp ni ko fofal naaw bi ñu luwe woon mu ngi woon Madrid mm-hmm. parce que ñun tamit dafa am ay espagnol yu ñuy liggéeyal ñoom tamit dañu topp lool te ñooñu dañu ànd ak lekk-lekk ak ay officier ak ay fonctionnaire u euh, espagnol ñooñu ñoo leen di wax lii ak lii xew na mais tant que loolu firndewuñ ko ñun mënuñu si teg baat tant que firndeluñ ko mais nag le wéer ni que loolu amoon na parce que luye woon nañu avion bi avion bi waroon na dem Las Palmas seeti yenn xale yi indi leen loolu lu wéer la loolu dañ ko ajoon jame jëmbi jamono jamono bi ñu toll nii tamit yëkkati nañ ko dina am wala du am parce que ñun duñu ay dépositaire u euh, pouvoir public pour mën a wax ci tuuru autorité yi ñun ay lanceur d'alerte lañu mbir day xew mu war a jëm fenn ñu ne leen ah attention bàyyi leen xel ci lii parce que lii mën na am ci doomu Sénégal wala ci lii waxuñu ko pour yàq waxuñu ko pour kii mais dañ koy wax faju moo gën fagaru ñun lañu leen koy wax pour nit yi fagaru par rapport ak lii mën a am li wër nag ba wéer mooy ni que ñi nga xam ne dem nañu waxuma ñëpp waxuma ñëpp de dina si am ñenn ñoo xam ne dañ leen delloo si loolu moom kuñ ko munti kuñ ko munti wax na kii ku ñu nee duñ ci delloo kenn kenn kenn du si dellu loolu dañu wax li leen neex Europe dafa joxe ay instruction yu wóor mooy ni que seen espace boobu keneen ku fa munti nekk te nekkoo ci situation bu régulière ñu xool nan la leen si delloo yi jamono ji ñuy dëpp ñenn ñi eh, ñeneen ñaa ngi gën di jël gaal yi di dem eh, jóge fi yàggul sax semaine passée ñoo ngi wax ne am na immigrants yi nga xam ne ñoom dañ leen a sauvé eh, ci donc ndoxu Saint-Louis tey lan nga jàpp ne moo waral ba tey ndaw yi di gën a ñeme géej gi pour wutali tugal. waaw xam nga gis ngeen demu ndaw yi si géej gi. Mm-hmm. du question wu dem. du question wu koppar. question wu sociale la question wu aada question wu euh, kër la que xale yi dañu jàpp ni que ñoom bu ñu demee bitim réew dañu tekki tekki bi bitim réew la nekk parce que amaana ni xëy bi fii euh, doyul euh, li ñuy koppar yi ñuy gagné si liggéey fii matul donc ñoom jàpp nañ bu ñu demee bitim réew rek dañu war a tekki mais xam nga lan moo si dëgg bi mm-hmm. ñu fexe ñu waxtaan ak sunu ndaw yi ñu xamal leen ni que même bu ñu demee dellu dellu si Afrique moo yore adduna bi fu mu nekk nii ëllëgu adduna bi si Afrique la nekk hmm. ñun doomu Afrique yi ñoo mën a gëm si Afrique pour mën a développer Afrique hmm. il faut ñu gëm ni que gis nga tool yi toolu waalo yi hmm. suñ suñ xale yi jàppee gëm si liggéey ko béy ko état bi tamit fexe xool nan lañ leen di rémunérer rémunérer bu décent bu humain xaalis ko ñu mun a am au moins koppar boo xam ne mën nañ ko téye lu équilibré xale yi ni dañu toog ci biir réew mi donc ñu xamal tamit si wàllum caada. si hmm. wàllum caada ñu xamal ni que nit yi. Euh, bi gars yi bëgg a jàpp teg ko suñu kaw sunu aada ak moo gën aada boobu trop trop moo gën fi ñu nit bitim réew la nekk rek jàpp nañu ne ku tekki la. nga xam ne ñu ngi fii si réew mi. Hmm. ñu ngi fii si réew mi. tekki si réew mi te suñu dem bitim réew ñooñu lañu ñu war a valoriser dem bitim réew taxul nga tekki. te loolu tant que dugaluñ ko si bopp jigéen yi sunu yaay sunu mbokk yi si xew yi ñu xam ne du dem bitim réew mooy tekkiloo doomu aadama loolu mooy dëgg bi nañu bàyyi complexe ñu nekk bitim réew ñu jàpp si ñi fi nekk xale yi nga xam ne ñu ngi fii tekki si réew mi ñu valoriser ñooñu toogal sa dëkk nga développer sa dëkk jàppale sa dëkk nga nekk sa dëkk ba nga xam ne sa dëkk lépp lu mu am yow si participe si ci loolu ngay kii te lu mu métti métti métti nañu wax nit yi ñu jàpp ko mooy ko àdduna bi si loxo Afrique la nekk dem dellu siwaat lu tudd donc nañu toog liggéey suñu kii bi te ñu gëm suñu bopp ñu nekk suñu réew suñu réew kenn du jóge bitim réew ñëw développé ko man tout le temps may dégg ay France dégage ay ko tubaab yi ay ko léeg loolu yëpp si benn fondement rek lañ a teg mooy ni que ñun nañu gëm ni que keneen du jóge fële ku fi ñëw tamit buñ la da nga koy delloo sa réew kon ñun nañu toog liggéey suñu réew. justement ndax gis nga ne état du Sénégal moo ngi teg ay jéego ci politique de développement yi parce que yaa ngi artu ndaw ne leen tool yaa ngi fii ak leneen ak leneen ndax gis nga ay euh, donc politique de développement yi nga xam ne nguur gi teg na ko ngir gën a décourager ndaw yi ñu dem tugal xam ngeen décourager ndaw yi. Mm. du si ay politique de développement ay projet ki communautaire rek ay projet de développement kii yëpp. xam nga si lan si mm. éducation de base la war a mun a commencer si sensibilisation bu rëy la war a mën a commencer ñun fukki at ak ñaar ñu ngi fii di wax waxu immigration di daw si immigration amul lu ñu waxul ay répétition à ne pas finir la gis nga lan mooy mën a éradiquer situation boobu. Mm. mooy ni tous les acteurs. ñun ñi nga xam ne ñu ngi si les lanceurs d'alerte ñi siy participer état bi nga xam ne ñoom ñooy détenteur pouvoir public ñoom ñoo am pour autorité publique euh, partenaire au développement yi ONG yi ambassade yi ñëpp ñu toog ñu càmbarloo xale yi y compris ñëpp ñu toog càmbarloo hmm. xool nan la ñu mën a def parce que wax amul luñ fi waxul luñ fi waxul rek am na lenn lu des amul fu ñu tegul suñu tànk par rapport ak situation bi hmm. mais lenn rek moo si manqué mooy ñëpp a toogandoo ñu waxtaan xool ñu yëkkatandoo dóorandoo amaana ni dina wàññi dina wàññi mbir mi te pour ñu yëkkatandoo dóorandoo nag mooy man mën naa ñëw génnee solution wax si lu toll ni dëgg lu tol ni midi mais fekk li may wax arrangé wul nguur gi. te nguur gi mooy exécuter politique yi man awma pouvoir exécuter politique nguur gi mën na ñëw jaar teg benn programme teg benn projet boo xam ne man mi ak man mi nekk lanceur dara damay xam ne ñii dañu lajj te suma ma waxul ak nguur bi naa ko fi nga jëm ni da ngay lajji moom day dawal politique am rek xale bi nga xam ne dafay bëgg a dem su gisul boppam si li ñu man li ma wax mm. wala li nguur gi teg alors day jël yoon bi rek donc il faudrait que encore tous les acteurs ñu toog ñu xoolandoo nan lañ koy defandoo yëkkatandoo dóorandoo pour mbir yi mën a sotti. ci waxtaan yooyu la gis nañ ne euh, presque lépp wax nañ ko yéen ñi lanceur d' alerte yi amul lu ngeen joxewul comme solution ndax foog nga ne volonté baa ngi fi. waa mais volonté volonté expression volonté ñàkku fi man mi fi toog dix ans di si wax di yëngatu di jug di daanu di daw de gauche à droite. xam nga ni volonté moo tax ma ma ma politique yi décideurs yi moo tax may wax. politique yi nga xam ne ñoom ñooy euh, exécuté. waaw mais décideurs yi xam nga décideurs yi pour ñoom ñëpp ñu kii mooy li may wax encore une fois de plus. Mm. gis nga ak problème bi du problème mu décideur Sénégal rek. Mm. problème bi c'est international da ngay xool di xew actuellement diggante Pologne ak bio bio Biélorussie. Biélorussie. xam nga loolu inter c' est à l' mm-hmm. Europe la concerné xoolal li nekk di xew États-Unis actuellement diggante États-Unis euh, frontière États-Unis ak Mexique mm-hmm. xam nga loolu c' est de l' immigration mm-hmm. mais question immigration question internationale la man dama ko wax encore une fois de plus gis ngeen loolu pour ñu mun si teg ba surtout fii suñu réew yi mooy ni que il faut parce que jàppal lu tuuti Sénégal bu téye ay doomam te ay frontière am surveiller waax yi ñu téye ay gaal xale yi dañu génn dem léegi Mauritanie mhm. jël gaal génnee Mauritanie wala ñu dem Mali génnee génnee Mali loolu lan la ci Sénégal mën pour ñu éradiquer problème bi mooy ne il faut que ñu toog ñëpp mooy ci problème africain la ñu toogee ko régler ko d'une question africaine et d'ailleurs sax man dama yaakaar ni président Macky Sall ginnaaw moom mooy nekk futur président Afrique nañ ko moom noo fexe organiser benn conférence boo xam ne sur la question de la migration dëkk yi toog Mauritanie toog Gambie toog Sénégal toog Maroc toog ñëpp ñu toog waxtaandoo jëlandoo ay décision ay décision ferme ñëpp appliquandoo ko mën na am loolu dina wàññi fufleewoo bi yóbbante doomu yeneen mhm, ci dem beeg dikk bi du rek euh, diggante euh, Sénégal ak euh, Tugal waaye tamit ci Afrique muy immigration concerné nañu ndax am na ay sénégalais nee nañ toll nañ ci cent quatre-vingts nekk ca Zambie jamono ji boo mayul dinañ leen delloo siwaat ndax amuñu passeport bu valide ndax li ni mel war na xew. suñu diggante ñun ñii dëkk yi nekk Afrique. waaw xam nga nag loolu day faral di am tout le temps problème mu passeport renouvellement affaire yi mais nag li ñu waxante dëgg ah. tout dernièrement état au Sénégal en question de passeport ils ont été très très très euh, def nañ si jéego yu am solo wax mm. dëgg yàlla mm. ils ont été très très rapides ils ont trouvé des solutions kooku dañ leen ko nangul mais nag problème mu passeport bitim réew nga war a dellu si loolu problème de sécurité la. kooku tamit xam nga man du ma wax wax boo xam ne damay xool kii lu neex ak lu naqare nañ ko xoolee rek li xew fii si bitim si suñu mm-hmm. réew mm-hmm. Euh, si tali si feu yi boo xoolee ñi nekk si tali di yalwaan bëri nañ ñu ciy tuumal ay guinéen ay malien ak ay burkinabé ñu nekk fii si feu yi tout le temps ñu ne non nañ leen génnee nañ leen dàq nañu kii waa bitim réew waa bitim réew mais dañu fàtte benn mbir boo xam ne état wu bu mënul jël ñooñu rek dàq leen noonu parce que dafa am ay convention yu ñu signé ñoom CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens mm-hmm. te on est dans l'espace de la CEDEAO et ce sont des membres de la communauté de la CEDEAO mm-hmm. donc gis nga problème passeport boobu problème bu muy posé mm-hmm. mooy ni que am na si benn gox boo xam ne boo si nekkee li loi bi ak li kii bi teg loolu la léegi nag si yeneen dëkk yi da day nekk ay problème mu day nekk ay problème mu sécurité donc loolu ay problème loolu ay problème de sécurité la mais état du Sénégal a été vraiment très réactif Hmm. sur les problèmes de passeport. Hmm. dëgg la nag des na lu bëri surtout côté Europe bi côté Asie ñu ngi koy jooy ba léegi Afrique centrale am na ci mais euh, nañu yokkaat jéego yi à travers les les les les valises de passeport yi ministère de l' intérieur direction des passeports teg. Hmm. ñu renforcer waat ko ñu continuer ci liggéey boobu quoi. loolu moom am na solo trop trop trop mais c' est une nécessité document la boo xam ne c' est renouvelable presque chaque cinq ans. donc c' est nécessité pour les émigrés yi. waaw euh, li nga xam ne moom mooy yéen waa Otra Africa ngeen fas yéene teewee ca États-Unis Chicago euh, ci benn ndaje bi nga xam ne waxi euh, migration lañ fay waxtaanee lan lañ mën a jàng lan la yéen ñii. ngeen xam ne yéen lanceur d'alerte yi tamit di ci yongu euh, lu ngeen lu leen ndaje yu mel nii mën a apporter. waaw kooku moom au delà bu weesoo si sama jëmm bopp hmm. euh, autre Africa yëpp la la la sargal parce que suñu ñun suñu toppee di wax waxu migration te ku xam États-Unis xam na ni États-Unis dëkk la bu ñemee euh, émigré la dëkk la bu ubbi émigré la daanaka États-Unis immigration daf ci am doole ba mu kii léegi nag ñu wooñu ñun autre Africa pour ñu mën a dem toogi bokk si si si jataay yu mel noonu di dajak ak borom ka ak ak kii kàngam yi nga xam ne si wàllum immigration États-Unis wala si yeneen pàcc pàcc àdduna bi la ñu daje di xool nan la ñuy yëkkatee nan la ñu nasannoo kooku ñun dañ ñun ñun ñun dañ ñun ñoo siy jëriñu rek parce que boobaa dañu gën a gisaat lan mooy waxu immigration fekk du diggante Europe ak Afrique lañ ñun moom la euh, lii daal woote bi ñuy woote noonu invitation bi ñu invité boobu wax dëgg yàlla dinañu dimbaliwaat ñu gën a xam nan la ñu nasaree nan la ñu taxawaatee euh, question immigration bi loolu moom wax dëgg yàlla avantage la bu rëy pour ñun. te te te mbégte la tamit ñu xool Afrique ñu xool autre Africa euh, nee leen kaay leen ngeen bokk ci convention boobu Chicago. Mm-hmm. Souleymane Diallo ñu lay jaajëfal bu baax baax. jërë jëf jërë jëf. ok